حميد من يصمني من درر mbokki jullit yi fi teew mbokki yi noo ngi leen di dalal jàmm di yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne mooy rakki sëriñ bi di jëwriñam ci lépp mu yëkkati bis bi nga xam ne moo waral sunu daje fii tey te ñu bokk ko teg ko ci loxo mu nangu ndigal loolu lool jël ko téye ko waaye ànd ko ak nun ñi nga xam ne ak njabootam lañ ngir yéwénal bis bi nga xam ne amul benn bis bu dul moom kon ci ndigalu sëñ Fallou la ñuy kàddu kàddu yi nag kàddu yi cant la ak kàddu yi ngërëm ak xëy na aslëf ci soññe te ñi nga xam ne sañal nañ leen ko sañal nañ leen ko nag mooy ñi nga xam ne ci ron sëriñ ndaam lañ nekk te sëñ ndaam jox sëñ falu kàddoom muy jëwriñam kon kon noonu la ñuy waxee ne sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati ay kàddu di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak nun ci liggéey bii ndax liggéey la boo xam ne bu yaatu la bu aja dox ak wax ñu tàmbale woon ko bu yàgg li ci dox ak wax ba tey jii ci waxtu wi nu yegg ci mel ni liñ ci doon wut am nañu ko ñu ne nag dañu daanu daje kon santante ak gërëmante sëriñ bi joxe ay ay ay digal ak ay kàddoom ñëpp jot ci ku ne foo jëm mën ko faa yóbbaale ci loolu sëñ Fallou nee na mi ngi ko commencé ci autorité yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Mbàkke Bawol ndax fii la bis bi di amee li ko waral itam mooy Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo tax ñu amal bis bii tey ab nekkam fii la ëppe woon bis bii nuy amal itam di bisub ñaan ak fàttaliku te jàpp ko ci bis bi nga xamante ne ni ci la fi jóge woon ne dem ci liggéey boobu nga xam ne Sëñ Tuubaa ko liggéeyloo woon ci barab bii la bàyyi koo woon dem ci liggéey boobu loolu mooy illay nuy koy daje bii loolu tax na kon sëriñ bi ne mu ngi sant mbooleem autorité yi nga xam ne ñoo féete Mbàkke waaye di préciser sous préfet monsieur Wade bi nga xam ne moo doon coordonné liggéey bi ak service yi te àndoon ko ak nun ak mbooleem taalibe kon Wade sëriñ bi nee na ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay waaye nee na mi ngi sant mbooleem chef de service yi nga xam ne moom lañ àndaloon liggéey bi muy loo xam ne nii lu ci ne lu mënta ñàkk la ci lu mel nii ni ki ndox ak électricité ak sécurité ak santé ak lu jëm ci wàllu matériel yi ni mel yëpp nee na loolu daal cant ak ay gërëm nit ñi mel ci wàllu cet bi muy waa service bi cet sëñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ndax li ñuy mas di wax mooy dañoo jàpp ne dañuy dimbali waaye daana lu taxawal lu mel nii te ñoom duñ ci participer te it buñ ci participer wutoon du tey ñun li ñu war a def ñu def ko ndax dañoo war a ñàkkal Serigne Touba loolu lañ gëm kon fawuñu ne ci buñ gisee ne ñoom seen war gar la nag ñu ànd te ànde ci àndin woo xam ne àndu Pastef la ak ak ak ak yitte loolu duñ man lu dul sant leen gërëm leen kon ñu ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay ci ron nag préfet bu Mbàkke ak gouverneur ak ministère de l'intérieur même mi nga xam ne ñoom ñooy seen ay kilifa loolu it bu ñu ko waxee dina dellu ci cantu seeni kilifa muy état bi waaye man loola du sama wàll man ñu ma àndaloon di organiser lañ ma sant loo xëy na sëñ bi dina ci ñëw sëñ bi nee na mi ngi sant maire bu Mbàkke bu baax ci taxawaayam ci liggéey bi di ko rafetlu bu baax a baax ndax waaye itam doom la ci kër gi di jarbaatu sëriñ bi di ab taalibe waaye taxawaay yi matale na sëkk ci népp nu mu gën a rafete rek taxawee na ne ngir bis bi mën a yéwén ci noonu itam sëriñ bi nee na mi ngi sant sëriñ Mor Kase ak ak njabootam ci taxawaay bu ràññeeku bu ñuy taxaw ci bis bi mm-hmm. di leen ci gërëm di euh, rafetlu bu baax liggéey boobu ñuy liggéey di ñaan sëñ Tuubaa mi tax ñu di ko liggéey mu ñu daje ci ngërëmul sëriñ sëriñ sëriñ bi nee na itam ñi ngi sant sëriñ Basiru Mbàkke mu sëñ Abdu Xaadir ñun ñii doon organiser màggal gi dugal na loxoom ci organisation bi jàppale nañu ci bu baax ci lu fés loo xam ne amal nañ ko ci ak cant amee nañ ko ci ay ngërëm ndax wane na ne bisu boppam la rafetlu nañ lool taxawaayam bis mm-hmm. di ñaan lu mu man te di ko te nangu ko ngir jëm sëñ bu ëllëgee mu mën lu ko ëpp noonu itam lañuy ñuy sant mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi te dëkk fépp ci réew mi ak bitim réew jàpp ci liggéey bi ci anam yëpp jàppe ci ci wàllu finance jàpp ci ci wàllu seen jëmmi bopp ak seen i ñaq taxaw gëm ne dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa lépp lu ci war ñu taxaw ci ba sëriñ bi moom joxe ndigal rek la ci am waaye lépp luñ ci war a taxaw rek luñ ci war a def taalibe yi ñoo ko def kon taalibe nekk ak noo ko mane moo xam da ngaa yéene woon te la nga yéene mënoo lépp moo xam da ngaa yéene yéene te def tuuti ci la nga yéene mbaa nga def luy nuru lu rëy lépp maase na di lu rafet sëñ bi nee na sant na leen ci gërëm na leen waaye nag particulièrement daayira bi nga xam ne mooy daayira màggalu Cheikh Ibrahima nga xam ne ñoom dañoo boole lépp ci ab tàmbali daaw mën nañ ne ca lañ tàmbali woon di préparer màggal bi ba fii nu toll seen laxasaay yi tekki muy dongay tarbiya yi di waa kër gi di sëti Cheikh Ibrahima yi ñu ngi ci biir ak mbooleem kuy taalibe te dëkk ci tubaa ak li ko wër ñu ngi rafetlu seen taxawaay ndax tey jii bu màggal gi melee nii day mel ni mën nañ ne lépp seen loxo la ah ci ron sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne rek ñoom duñu leen sant sax dañ leen di soññ rek di wax ne danoo joxoon sëriñ tubaa suñu bopp wax aslamtu nafsi ab murit buy jébbalu day wax jébbal naa la sama bopp ak àllaaxira loolu nag na ñëpp ràññat la ne murit képp moo ko am murit a ko am mooy kuy hmm. dem ci nit jëbbulu ci moom da koy laaj wérd mbaa nga dem ci moom mu jàngal la ba nga mokkal la ngay jàng mu bàyyi la nga dem pratiquer ji wala moo jox la wérd ne la date sàngam lañ koy def ak heure sàngam lañ koy def wala waxtu sàngam la ñuy wérd lii waaye jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira moom sëñ Tuubaa la sosoo te itam ci lañ ko déggee gun ba fii nu toll nii nun ñooñu nag dañu am lu bari lu ñu wuutaleeg ñeneen ñi kon bi ñu joxee suñu bopp nag moomatuñ ci suñu bopp dara kon suñuy alal suñuy bakkan sunu man ak sunu tële lépp dafay dellu ci sëriñ bi loolu tax na kon bu nu engagé engagement bu toll nii ba ba saxaaba yi engagé woon ànd ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom danoo war a xam loola te jàpp ko bu wér-wér di wax ne jamono soppeeku na lool bari na tey luy tuddoo sëriñ Touba na ca lëjj coow la bari ca lool te jotewut ak sëriñ bi dara dafa mel ni sax dafa opposé wu sëriñ bi fa te ñoom sëñ bi lañuy tuddoo lu ca coow la bari bari loola du dégg méngoowul ak sëriñ loola nag bu fekkee dafa am ñun ñi nga xam ne dañoo jàpp te bëgg lañ jàpp wér te dara bañ ñu caa rëcc lañ jàpp dañ cay way deng te ngoy ca mooy li nga xam ne nii kon lu mat a bàyyi xel la lu mat a jàpp la di tënk it ci wax ne sëriñ bi waxoon na ni taalibi bi nga xam ne day dafa jébbale muy la mu wax ci kàddoo te jëfe ko mooy ki nga xam ne ma nga ca ndigal misaal ko ci ne taalibe bii wéy ci ndigal de mooy dafa mel ni gàtt bi nga xam ne dañ ko jébbal ab sardi mooy ab sàmm boo xam ne dafa warlu di ko wattu ba dara du ko gaar di ko jox muy lekk jox ko mu naan bu waree dallu mu yóbbu ko fa muy dalloo nee na gàtt bi nga xam ne mi ngi ci loxob sardi bi day moom mën naa naagu kaaraange ndax dara du ko fàdd dara du ko dal ki nga ah, taalibe bi nga xam ne wéyuwut ci ndigal nag mooy ki nga xam ne dañ koo jébbal sarde bi moom ci boppam muy xool kur wu gën a naat wala fu gën a bareem ñax nee na bu defee loola ba bëti sardi ba teggi ko ci euh, ba bëti sardi ba teggi ci moom mën naa am mu dajee faak loo xam ni loolaa ko ëpp doole te loola sàmmuñu ko mën naa am mu daje faak lu ñu sàmmut ni moom te loola ëpp ko doole loolu nag dafa bari léegi ci jamono ji ci ay façon yu baree baree baree baree bare ci alal ci ay nit ñuy fiiraate di xëcc di wax ci sëriñ Touba ak di tuddoo sëriñ bi te la ñuy wooteek la sëriñ bi doon dox dafa opposé wu loolu nag ku ko xam mat koo ma te am lu wér loo mën a jàpp nga jàpp ca te way ca deng ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba nun daal foofa lañ nekk sëriñ bi nee na foofa lay nekk loolu ñëpp bu ko defee ñu jaajuwaat laxasaayuwaat fas yéene li nga xam ne nii mooy suñuy warteef ak suñu pas-pas ñu nekk ca te la ci gën a wér mooy loolu yi dinaa am lu ma wax loo xam ne lu wér la mooy Serigne Touba. Serigne Touba képp ku aju ci moom te muy dëgg moo la warlul sa kaaraange àdduna ak àllaaxira waaye képp koo xamante ne ni yaa ngi ci li la war na la wér ne foo toll Serigne bi mu ngi ci say yaa ngi ci bëti Serigne bi mu lay teg bët. doo ko génn la tax loolu mooy sëriñ bi li mu daj ci yàlla boroomam ak li mu jànkoonteel ci ay fitna ak ay naqar ak ay mettit ba jaayante giirub dundam yi gën a métti ci àdduna mu tegoo ko ba tegoo yoo xam ne sax yàlla daganal na ko ci moom ngir not bakkanam ak jaamoo ko yàlla ñaar fukki mbir ak juróom-ñett yoo xam ne daf koo tegoo lu ci ne dagan na waaye daf koo gedd ngir jëmmi yàlla jël fanweeri mbir ak ñett yoo xam ne daf koo gàlloo warlu ko ngir jëmmi yàlla te loolu yàlla tegu ko ko foofu bu demee ba yàlla wàcce ko ab liggéey mu dellu fa mu nekk dootu teg bëtam ci lu koy naqari wala luy yàq ab toogaayam bu ko defee nag bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci loo xam ne waru la na la wóor ne buti sëñ bi nekkul sa kaw ndax wàcci nga yoon buñ koy misaal dañ koy misaal ci caméra surveillance yi ci aw yoon lay tege wala fañ ko dëpp rek lay tege koo xam ne ni yaa nga ca biir loola mu couvrir la waaye boo nekkee ci lu dul yoon na nga wir ni nekkoo ci bëti sëriñ bi ndax sëriñ bi yàlla dootu ko woon dara lu ko naqari kon képp ko mu doon da nga nekk ci sëñ Tuubaa jox ko sa bopp la koy wéral yaa koy def mooy tege siraatal mustaqim bi wir ndax sëñ bi la mu dox ak la mu wooteeg li mu bind ak ñam yar lam leen yare mi ngi fi te loola du raaf mu ku ca bëgg a dolli leneen loola sa yëf la waaye du yëf sëñ ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayidina wa mawlana muhammad almakki alamin wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi wa sallim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bokki taalibe yi bokki julli yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdourahman Mbacke mi jëmmi sëñ sëñ Ibrahima Mbacke ci kaw suuf tey yaaram ñu ngi leen nuyu baax wallaay sa tiddi la ñaanal nga yàgg fi tànd ak wér sunu nuyoo ci yow mooy nuyoo mboolem taalibe yi nga jottali na ko bu màgg ci jëmmi sëriñ Tuubaa jamono Cheikh Sidil Muxtaar moom it yàlla na fi yàgg ti ba mottali naa li sëriñ Tuubaa yëpp jaay Cheikh Ahmadul Xadim xanaa dañuy tënk rek. ngir ne ko sëriñ bi waxee ci xatug waxtu wi ñu war a leeral dara ci dundug Cheikh Ibrahima Mbacke mi waral jataayu tey bii muy kenn ci njabootug Cheikh Ahmad Bamba Xaadimul Moustapha waxtaane ko mooy waxtaane Serigne tubaa waaye mooy waxtaane njabootug Serigne Touba gépp moom Cheikh Ibrahima Mbacke nag day kenn ci koo xam ni yàlla da ko fay Serigne Touba ci liggéey ba mu doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi loola nag sëriñ bi moo sat addu wax ni man zanna sayri xibbaami ak sësi misla masiri rasaami jëy sësi zabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tatibul ali lil umra lam yakku sayru aksasin siwa jasa man li qaada baadu waadan an jasa loola mooy sëñ Tuubaa dafa wax ni képp ku jot mbaa nga takkale mbaa nga dendale tukki gi ma tukki woon ca bopp aama jëy sa sin jëm ci géej gi nga di ko niraleeg sama tukki gi ma tukki jëm gànnaar nekkoon réere nga mbir jaxase nga mbir yu bakkut tollale nga yu niroowut ndax sañ bi ne sama dem jëm gannaar du dara lu dul sama borom tabaraka wa taala moo ma naroon fay lépp lu ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii doon liggéeyee keroog ba mu waxee ni moom si Ahmad Bamba xaadimul Mustafa xarajtu yowma sabti rabia safar li xidmati lmuxtaari afdali lbachar wala xarajtu yowma sabti saamin achar li xidmati lmuxtaari fi chehri safar loolu nag ba mu cay dem dafa waxoon ni xusuuriya xalat wala hulwaan ni tafarraqat bi mat xillasi anhu lmadiyu qasiw loolu yi taxoon nag mu gental ngéndam yi wan gannaaw njabootam bàyyi ñëpp ngir liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa fasoo woon ak suñu borom tabaraka wa ngir liggéeyal yonent bi juróom-ñetti at yu mat sëriñ bi wax ne sayyarni ilal bilaadi naiya waqaadali muxjira sam'an saariya saa borom mooy ki ma doxloo yóbbu mu ci réew yi sore ngir ma liggéeyal fa Mustafa alayhi salaatu wasalaam lu kenn mas ta liggéey loo xam ne kenn masu koo jëf ma jëfal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba sama borom di fay nag ne saa borom da ko si bi ci réew mi ndax ba mu liggéeyee ba am juróom-ñaari at yu teg ay weer la ko borom xamal ni yellatul ci ngay fanaan génn guddi di tumuraanke dellul ci réew ma sëñ Tuubaa ne wallaahu yad'u ilaa daari sëriñ Moussa Ka ni ñëpp ni mu doon a malaan ba mu dellu see moom si Ahmadul Xadim tubaab bi xolam gën a naqariwaat ñu daal di déggoog Seex Sidi Baaba wax ko mbiram sëriñ bi sëriñ bi xamal leen ni moom day seex si deen leen moom day ragalul ci moom benn ñaawteef xamuñu ko ci moom it nasaraan bi ni ko kon nu dénk la ko nga gardeel nu ko seex si deen ni leen di ngeen dénk ma ko ma gardeel ko incha allah mën naa ko garde bu ngeen ma ko dénkee danaa leen ko wattul ba seen liggéey sotti sëriñ bi nag mas na mu ñu ni ko benn ndigal wala benn jë mbir cib jëf lu dul ndigal suñu borom tabaraka wa taala ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mam daan liggéeyal moo tax keroog bu ma amee ndigalal sama borom ci dem gànnaar ci li fi xëyee nag jëm gànnaar dem googu nag la wax ni dara yóbbu ma woon gànnaar lu dul fayu ji liggéey bi ma doon liggéeyal yonent bi ñeentaat yi mu def gànnaar nag ci tënk fam ma sa toll lu ko fa yàlla defal moom ca ahmadul xadim wax na ko loo ca jaraar yi wax ni xad jaa ani su'lu min rabbi bi takraari laa siyama inda bi'r al xayri jaraari mu ni moom Cheikh Ahmadul Xadim la mu doon jaayanteeg sama borom tabaaraka wa taala ci liggéeyal yonent bi sun borom fay na ko foofu ca gannaar rawatina ba mu ca teenu yiw bay jaraariya waaye ba mu sarsaara nag foofu la ko rasulullahi sallallahu alayhi fekk indil ko wérdul maxuus min allahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa wax ni yonent bi moo ko ko jox yàq satan laa mën a man ne keroog ba ko yonent bi dikkee di ko jox wérdi wi fekk ko ci nelaw dikkeewug ci ngimbent dafa jàkkaarloog yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis na tuju yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dalante ne keroog la ko yonent bi saa wérdul maaxuus jëlee ko fa yàlla suñu borom jox ko sëriñ Tuubaa waaye foofu it la yonent bi digalee nag sëriñ bi ngir mu jël ci doomu surafaaw yi ci gànnaar këm dëkkoo mu dal di waxtaan ak Cheikh Sidiya Baba Al mu dénk ko soxna Fatma mi nga xam ni mooy wayjur Cheikh Ibrahima Mbacke Xaadimul Moustapha bi nga xamee ni nag sëriñ bi am na yooyu nuy dellu si ci réew mi Cheikh Sidiya jox ko soxna Fatma moom nga xam ni wayjuram wu góor mooy Sine Mahmoudan bokkoon ci surafaawu gannaar yi bokk ci xabila gu ñuy wax dawaali ci noonu sax nag sëriñ bi ne ñu ngi jottal ak nuyoo ak bu baax Chérif Marabot mi bàyyi ko gànnaar ak rakkam ñëw teew si ci bis bii tey ma ngi ci mbooloo bokk ci giir googu di giru dawaal yi di biir xeeti wéy juru Cheikh Ibrahima Mbacke ci wéy ju wàllu wéy juróomu jigéen ñoom xeet woowu nag askano ci Sayyidina Ali moom soxna Fatma Mahmoudan mooy wéy juróomu góor Xadijatu ñu gënoon ko siiwee ci jëdday nii moo ko meññi Xadijatu xiyaara loo ko meññi xiyaara lu bàyyi ko ci Mouhamad Al Aas Mouhamad Al Aas bàyyi ko ci Sayid Ahmad Al Aas Sayid Ahmad bàyyi ko ci Yaxya Yaxya soqi ko ci Hachim Hachim soqi ko ci Yaxya Yaxya moom bàyyi ko ci Hachim Hachim bàyyi ko ci Mouhamadul Asxar Mouhamadul Asxar meññi ko ci Mouhamadul Akbar Mouhamadul Akbar bàyyi ko ci Alul Jamil Alul Jamil bàyyi ko ci Zeynul ay awal Zeynul awal bàyyi ko ci Moulay Zeyn Moulay Zeyn bàyyi ko ci Zeynul Abidin Zeynul Abidin bàyyi ko ci Xasan Musanna xasan musanna bàyyi ko ci xasanu sibt xasanu sibt si soqee ko ci sayyiduna ali ibn abi taalibin way juróomu jigéen di fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon cheikh ibrahima bakki dag naan sharifun ibnu sharifin ibnu sharifin ajdaadu wa shurafaawu moom sharif la ci cheikh ahmad bamba xaadimal mustafa boo toppee maam jaara téere ci sayyiduna fatima bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga jël fatimatu mi jur Cheikh Ibrahima teere ci sayyiduna Ali teere ci sayyiduna sayyidatuna Fatima bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibrahima Mbacke mii nag bi nga xamee ni sëriñ bi nekk na ci gànnaar ba ñeent at yow mat mu bàyyi koo fu jëm si ci réew mi nag indaale soxna Fatima ba mu ñëwee ba agsi fii fi njaareem fan yu ñëw la fa daal di yónnee ñu yóbbul ko ko ca sëñ Abdourahman Lo Ndaam fa daarul alimul xabir ngir booba dig bi nga xam ne Cheikh Ibrahima mbakke war na feeñ jamono ma ngi jóge si loolu nag li ci sëñ Touba namoon ci lu ëpp ci njabootam di feeñee foofu li caaju lépp xamuñu ko waaye li feeñ ci dikkub Cheikh Ibrahima Mbacke mooy nam gi nga xam ne sun borom tabaraka wa taala namoon na ko xamal ilmul xuyub xam-xam yu faddu yi nga xam ni kenn du ko xam lu dul ku ko yàlla xamal loolu moo tax mu feeñee jamono foofu ci kër googu di daarul alimul xabiir nga xam ni sëriñ Tuubaa ma waxoon suñu borom ni ko àllamtani alxayba xatta sirtu muntabihan anta al alimu lasi àllamta yallaahu loolu nag Cheikh Ibrahima Mbacke moo ko doon ci Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul Mustafa Cheikh Ibrahima Mbacke moomu nag bi nga xam ni sëriñ bi nekk na fi ba làqu ba ci jaam ñi Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëwuutu Cheikh Xadim ci kuutaay bu rafet bu matale ba bàyyi ko fi Cheikh Mouhamadul Fadal jàmbaari lislaam ñëw wuutu sëriñ Touba doon sëriñ Toubaay jamono ci fan yooyu nag la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Moustapha feeñu Cheikh Ibra sant ko destu liggéey bi nga xam ni moo desoon ca liggéeyu géej ga ndax sëriñ Touba dafa wax ni makastu fil bahri samaniya xijajin illa qalil loola ca desoon nag Cheikh Ibrahima Mbàkke la ko sëriñ Touba sant ni ko doon dem mottali jéegu ya lépp loo xam ne sëriñ Touba wàccoon nag fu mu andi ko lu desoon ca fan ya Cheikh Ibra mottali ko Cheikh Ibrahima Mbacké dal di waaj ngir toppi jéegooy Serigne Touba loolu ngay dégg nag Cheikh Moussa Kanaan ñëw leen siyaare doomi Cheikh Bamba ka toppi jéegoom ya ba dem maa yomb nee nañ garab lañ fa gajjee fay seqee dogeetuñ mooy baar baaree seqi doom moo di bàyyi ki lay sëtu maam jaara kii moo jara sargal kii moo yeyoo siyaare cey doomi jaan dangar lay judduwaalee ngóoloo la dim ña sollugul ñu jaale sëñ Moussa Ka ne déglul ma wax la la waral tukkeem kon nga ziyaare ko ba ca yool ba Cheikh Ibrahima Mbacke ne ca weeru koor wa la Bamba ñëw fa moom digal ko yool wa gis na ko Mbacke gis ko fi Ndakaaru dellu ko gis Louga ba dollee waaru mu naa ko bu ñu waree demal ma Congo ngir mottalil ma at yéen nee ma gongo at yesooy bu diggee woon ak Moussa laa diggee woon maag yàlla rabbu Isa loolaay juróom-ñetti atam yu mat a te boole koog nattu yu rëy te doo tawat loolaay canub jigéen warul ay nii dootuñ ma sànnali ci doon a may keroog ne ngir àdduna ak laaxeer dañ ma doon gëroo ku ne ni yaa jël te naa sama goroo sëñ bi nee ma denc laaxeer te gedd duniyaa fase ko fawu faw doon a suniyaa duma ko baax da sëw ji ko batt na dem seeg góorum bulam ñooñ xat biatu lesi la dan nasaara tulla bi ma radallaahi law murtara waylun liman ila nasaara maala li kay yanaale miknatan aw maala lii la ma Cheikh Ibra xibaar fa bàyyam loolaa waral tukkeem ba moo di bi yaram mu mel ni kon ka xëy ci jaas ci ka sa sin fa mbàkke baar yi muy cheikh ahmadou ba xaadimul moustapha moo xëyaat ca jax sa sin fii mbàkke baar yi di cheikh ibrahima mbàkke mu mel ni eh, ndigalal sëriñ bi mooy ñu gàttal xanaa sant daal te xam ne cheikh ibra li ko sëñ Tuubaa waxoon ni dugal saxaar dem ba galwaa ngir mottali nattu yu ànd ak balwaa bul paas ci xaalisu keneen ku dul yow la feek ba ngay dem si man maa yow ba màggee nag la Samba Ndiaye biral loola ndax ba ba Sëriñ Tuubaa di tàggul moom magam sandarma moom yi dakaa waxoon ni doo faatu ba ma del si fekkaat la fi juróom-ñeenti mango yi bu ñuy dee di dee ba des genn danaa fi del si fekkaat la moo tax sëñ Moussa Ka ne keroog ba sëñ Ibra dikkee mu laaj ko li ko Samba Ndiaye jëkk wax mooy keroog ba si Ibra nuyoog Samba Ndiaye dañu ko mbàkkee ndax nga fa nga bawoo ba nga nekkaatee jineen jëmma solaan mi leen mbubb ndax nga fa nga bawoo ba kon ki demoon moo demaat kii mooy cheikh ibrahima mbakki di cheikh ahmadou bamba xaadimul mustafa kon ibrahima alxillu qad naala almaqaama bila shakkin min allahi sa jalbin wa daf ibala huwa alxalilu xalilullahi sirruhu wa sirru wujudihi cheikh ibrahima mbakke mooy ki nga xam ni lépp loo xam ni sa borom tabaraka wa taala namoon na ko ci suñ maam Ibrahim dottil na na ko ci Cheikh Ibrahim Mbacke mu doon nekk ci Serigne Touba fallaahu yujaasi xayra maa yujaasa li abdin ahsana wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp. nuyoo bi gën a sell. di nuyoo bàyyi ko ci Cheikh Sidi Mokhtar. waaye ma koy wax ci kaddu sëriñ <coughs> Cheikh Bara Mati Lay mii toog nga xam ne bi ñu fi ñëwee itam moom mooy kilifa ci noonu ci ñi sëriñ bi yebal ñu jiite mu jiite yoon wi loolu moo waral bu mu yegsee bu ñu dee waxati ci kàddoom la wax maa ngi ànd ak sëriñ Modou Aïssa wax nañ ko léegi sëñ Abdou Samad mu sëñ bi ak sëñ Modou Aïssa ak sëñ ak Abib sëñ sëñ bi ci ngoon mu wax ne ñu dellu si kon sëñ Ndaam maa ngi lay jiital ci nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak siyaareem ak ñaanam ak cantam ci bis bu tedd bii tey ñu di ko defal waajuram bu tedd bi te yàlla teg la ci kanamu njaboot gi ngi jiite leen di ko taxawee waxtu wu ne te lépp ànd ak rafet ak dëggu di nuyu bu baax sëriñ Abdul Ahad mi ci sawet di nuyu sëriñ Sidi di nuyu sëriñ Mouhamadou Rafa ah, di nuyu sëriñ seex aw bàll bu ma tuddee ñooñu nun ñi ci des ñëpp dañuy dugg ci seen biir ndax ñi fi nekk ñépp kenn ku ci nekk daanaka mën nañoo jaar ci saw tur mu mel ni sëñ Amaa ngi nii ci suñu wet sëriñ Modou sëriñ Cheikh Abdou Mbacké kon bu ñu leen tuddee ñooñu rek ñu ci des ñëpp daanaka mën nañoo dugg ci seen biir di nuyu itam ñi nga xam ni dañoo ñëw teewal fi président Macky Sall Abdou Ndéné Sall jiite ko ñu di ko nuyu bu baax di nuyu Xaadim Diop mi xam ne moom la àndal suñu dooyu bàjjan di nuyu bu baax itam Pape Mayel Thiam di nuyu préfet di nuyu gouverneur di di nuyu préfet di nuyu bu baax itam député yi nga xam ne dañu fee teew yëpp di ko teg ci loxo màggat jaxate di nuyu ñi nga xam ne dañu fee teew jóge ci président Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ne dañu fee teew jóge ci yeneen parti di nuyu bu baax sëñ Moustapha njaate mi nga xam ne tamit mooy wax ci turu bi di nuyu njabootu Serigne Ndaam yépp góor ak jigéen di ko teg ci loxo Cheikh Abdou mu jottali ko ci ñëpp di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne dañu fee teew yépp itam te teew fi ngir bés bu tedd bii tey di nuyu Serigne Abdou Mbacke Ndaw mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi di nuyu musaa Sidibé di ko yóbbante nuyoo moom itam ci Omar yu mi xam ne moo ko fi yebal te barki démb rek mu ñàkk waajuram ñu dogo ko siyaar di nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo jóg ñoom ñëpp ñëw ngir bis bii muy bis bu tedd ñuy seere kàddu yi daanaka ginnaaw nuyoo bi mën naa bañ a gudd ndax kàddu yi cant rek la ndax liñ fi war a wax lépp sëriñ bi dana ko wax jox ko dana ko wax sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha wax ko ñëpp ñëwoon nañu fi ci bëccëg ànd ci julli jumaa bi bi ñu delloo sëriñ bi wax ni nañu fi dellu siwaat boole ñu ak ñii mu ñu booleel sëriñ Cheikh Bara ñëwati dolli ko ci kon loolu xam ngeen ni bis bii bis bu sëriñ bi fonk la ndax xam na ni bisam ndax digganteem ak sëñ ndaam day loo xam ne dafa yàgg dafa jiitu lii lépp te sëriñ ndaam wax na ko toog naa mu toog mu wax ko ne ko man de maa la wër ba gis la kon nag loolu defe naa du tey jii kon sëriñ bi di xam le rek ni bi mu fi toogee nekk sëriñ Touba ak léegi sëriñ Ndaan nii bépp liggéey boo nga xam ne mi ngi koy taxawal di ko taxawalu sëriñ Touba kenn mënu ko ca taalibe yi nga xam dañoo ànd ak moom ak rakkam yeeg doomam yi itam lépp loo xam ne dañu koo jaarale ci sëriñ ndaam ngir mu jëm si ci Cheikh Sidi Moukhtar sëriñ Ndaan indi na loola ba jël alali boppam teg ko ci te teewut mu toog ci njaboot gi li ko war mu di ko fi def ndax ku gis jumaa ji ñu fi def julli ko tey jii nga daal di xam ne Cheikh Ibra la la waajuram bu tedd wa nekkoon Cheikh Ibra ñëw nekk ca ba yàlla bàyyi ko fi moom mii itam tànk yooyu mu ngi koy taxawee ndax Sëriñ Tuubaa dafa amul dara loo xam ne moo gën a kowee lislaam léppam da koo da koo ngir lislaam taxaw ndax ba mu fiy ñëw lislaam jëm fi fekkoon summeeku ñu yóbbu ko ci géej gi juróom-ñaari at juróom-ñaari fan ak nang juróom-ñaari ay bis ak nangam ak nangam lim loolu lépp ak kaso ya nga xam ne ca lañu ko doon dugal nag yañ ko doon booleel gaynde yañ ko doon booleel yooyu yëpp taxawu diine kese moo taxoon waaye booba amoon na roq boo xam ne bu fa duggoon di jullee ko woor itam kenn du ko fa fekk ni ko tey nga dem waaye nag dafa jóg xam ne diine laaj na taxaw xam ne diine laaj na xeex xam ne diina laaj na taxaw laaj na xeex mu jóg taxaw kon euh, bis bu mel nii tey bu amee damay wax ne dafay am lu bari luñ ci jànge wax naa ko ci exposition bi ci bëccëg ci bëccëg ci exposition bi dama leen a wax ni euh, bis yu mel nii bu amee ñu dajaloo rek lekk naan ci joxante addiya daat dem baax na waaye nag li ñu doon def ci exposition bi feeñal liggéeyu Cheikh Ibrahima ngir référence ni mu ñàkkee ci jamono ji fi mu nekk nii ñu référé ci ci ci ci ci Serigne Ibrahima seet itam ñi nga xam ne ay doomu Serigne Touba lañu ñu am ñuñ ca tànn ñu nekk ay référence comme Cheikh Abdoulaye ñu wax ni mu doon liggéeye defar ay dër yoo xam ne daanaka mujj na Mbàkke ak Touba fépp moo leen di servir ay ay ay ay lu ci mbay mi pour wane ni yoonu murit ñoom yàgg nañoo fonk liggéey yàgg nañoo fonk mbay itam kon loolu lépp itam euh, buñ ko feeñalee ci exposition bi loolu dafay wone rek ni euh, mënoon nañ yem ci feeñal liggéeyu sëriñ Cheikh Cheikh Ibrahima kese waaye nag dañoo feeñal liggéeyu Cheikh Ibrahima daal di tànnaat sëriñ Abdou mu mu jige woon Mbàkke gi jigéeg moom lool tax kook moom moom itam ñu feeñal ab liggéeyam kon loolu itam biñ biñ ci yemee dañ koo rafetlu lool te jamono ji kenn ku nekk da ngay da ngay kenn ku ne dangay ngay jàpp ne li am fi yow rek la am da ngay jàpp ne li xew fi yow rek fi yow rek la xew euh, àgg nañ ci koo séen day tëggu ni man rek koo wéet ak moom boo waxee ak moom ba bàyyi da ngay dee ne moom képp boo dajawaat ak keneen boo waxee ak moom ba day ba bàyyi da ngay dee ne moom képp te li ëpp ci nit ñi la ñu wax du doon lu nekk ci ñoom. li ëpp ci nit ñi fi mu nekk nii buñ la nee sax ma jël sama numéro téléphone tàppee ko ngay gis bu subaa boo leen woo doo leen jot buñ la nee maa nga jëm Tuubaa it boo demee ci yow boo de boo demee ci yow nga bu weer daal di fay dajeeg ñoom te loolu lépp dara wëralu ko dul ñàkk buñ ñàkk référé wu ci njàngale mag ñi fi nekkoon ñu mel ni Cheikh Ibrahima mii ak ñi nga ak ak ñi xam ni ñoom la bokkal Serigne tubaa seen njàngale ma ñu nekkoon ndax Serigne Touba. fu mu fu mu masaan fu masaan di jàngale wala fu mu masaan def daara jàng ak yar ñoom ñaar lay lay tolloole jàng xam-xam bi ak yar bi lay tolloole da mujj jàpp ne sax yar bi moo ko gënal ndax terroriste yi ñuy wax ak yooyu yëpp fi ne boo ko seetee tey képp kuñ la ni terroriste la boo ko seetee tey wala nga dégg mu def attentat ab ingénieur lay doon wala ab ingénieur lay doon wala mu nekk ab docteur kon kooku mooy kuñ jàngal te yaruñu ko moo taxoon sëñ Tuubaa bi mu daan jàngale mu fonkoon njàng bi muy ànd ak yar te kuñ jàngal te ko day am xam-xam foo ko xaar mu dem feneen xoolal bi ñu teg ay bomb ñuy wut ay machines yoo xam ne day day day détecté bomb yi ñu wàcc leen fa taal wata foncé daw ci biir ay nit rey fa ba doyal ñu dee ne ñu ñu toog di leen xaar wata buñ ceeb di ko daw am ko ŋàbbu xepp yéeg ci ak saxaar di gor ci ci kaw nit ñi ku leen bëgg a téye fan foo leen di téye te loolu lépp kat dara def ko dul am xam-xam te amoo yar doo xam yàlla doo ko ragal doo xalaat ëllëg itam doo xam yàlla doo ko ragal doo xalaat ëllëg ñun nag Serigne Touba dafa doy référence sëkk ci noonu li mu fi bàyyi itam muy mag ñi mu fi bàyyi dafa doy référence sëkk ci noonu ndax mën naa jaar te ñu jiitu ba yegsi waaye suñ suñ jàmbaar jii lu tollool te jii ñu fekkanteeg moom muy Cheikh Sidi Mokhtar ku xool sacrifice bi mu def ba mu toogee nekk Serigne Touba ak léegi ku xool sacrifice yi mu def xool ni mu fexee ni mu fexee ba jullit ñi ñëpp di saafoonte fexe ba nga xam ne man mii damay dem ci bërëb caawoon ne bu ma waxee kaddu gu genn yenn saa yi damay dem ci bërëb wax ma ne kàdd genn la wala jaasaan wax ma ne kaddu genn loolu dafay liggéey bu réeré boo xam ne ku ne jéem na ko moom yàlla dimbali na ko ba nga xam ne du ma wax sotti na waaye mën naa wax ne lu bari rafet na ci loxoom kon nag ku mel noonu ku ko am moom képp référence la boo xoolee tey jii sa Cheikh Ibrahima ba mu fi bàyyi njabootam gii jóge fii dem Gabon tam xam la nekk Gabon xam la fa sëriñ bi daj nga xam ne bi ñu fa yóbbu sëriñ bi dañoo xooloon continent bi gën a réew mi gën a sowaas ñu jël sëriñ bi yóbbu ko foofa bu yàgguloo ci màggal gi bi ñu fay dem xëy nañ bëgg a dem maayom ba xaw ma wér-wér dafa lay ba midi mënunoo dem danoo mujj dëppaat loolu da lay jox firnde di lu lu lu mat cent ans nit bëgg faa dem mënu foo dem kon bañ fay yóbbu sëriñ bi noonu meloon kon ñun suñu référence mooy sëriñ Touba suñu référence mooy njabootu sëriñ Touba gii mu fi bàyyi suñu référence mooy l'islam suñu référence mooy xam-xam suñu référence mooy ab yar ay teggin ak aw ci ndigal wante saa bu sëriñ bi waxee ba daaneel nga ne sëriñ ba nangam laa war na def te wax naa bët ki démb de boo dee maye sa doom dikk di sëñ bi eh, damay maye diw mu mu xool waxtu wañ koy maye bu ab néew amee nga ñëw ni sëñ bi waxtu woo bëgg ñu jublu ci lu xew nga ñëw ni sëñ bi nangam waa yooyu yëpp neex na la te yow lañu koy defal waaye bu sëñ bi waxee loo xam ne du sa intérêt wala neexu la nga dañ sëñ bi daa war a na wax nangam moo ne saa bu ñu ba say tànk dëgër këñ ñu yeew la ba nga ne suul la ba nga ne man la romb la euh, wan la gannaaw dem ponkal mu la man fuuf jot ndigal te du la yërëm bu ñëwee sëñ Touba képp nga yaakaar fa kon war nañoo déglu waxi sëñ Touba te jaar ci waxi sëñ Touba nag génnul lislaam génn génnut alxuraan génnut sunna génnut ak bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan nga ñaanal Ibrahima Gueye suñu borom xare ko aljana ndax taalibe sëriñ Touba la woon te lu mu mas a am ci àddina mbàkke la ko def lu mu mas a yëngu mbàkke la ko def suñu borom moom ko ñu ñaanal ko tey mu tàmbee bisu sëñ Ibrahima bi yal na ko yàlla na nekk sëriñ Touba sëriñ bi ñu ngi lay ñaan man nag duma ma guddal ndax waxtu bi dafa xat te boo toogee warumaa wax wante boo ma joxee kàddu damay wax ndax ñun lépp lu ñuy def rek suñu yëngu bu mu mën a doon jaamu yàlla lañ ci jublu ak liggéeyal ci Serigne Touba ngërëmul Serigne Touba lañ ciy sàkku ci dëkk bi ke leneen da sama kilifa ñaar yoon ci xaadimu rasul ak ca Mauritanie ndax sëñ Abdullahi ak Cheikh Ibrahima ñoo bokk Mauritanie bokkaat Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul kon sama kilifa fii fi teew yépp maa ngi leen di di leen ñaanal di ñaanal tamit délégation yi fi ñëw yépp ñu ci njiiti réew mi ak yeneen parti politique yépp yàlla may leen ak dal ak jàmm def jàmm ci réew mi ak ak xéewal ndax naataange bekkoor a ci topp kon yal nañu yàlla may xéewal dañ jànge lu bari <laughs> ndax boo xoolee sunu maam Cheikh Ibrahima ni ko sëriñ bi waxee léegi jaar-jaar yi mu jaar ngir toppaat tànk waajuram wa xeñtuwaat ko mottali fa la nga xamante ni namoon na ko ca yan nañu ko ci yàlla fayal mbokkam ma sëriñ Abdoulahi Patrice Diouf mi ngi wax ci journal Paris Dakar ne dernière production bi mujjee def ci fruits ak poisson ndax daf ndax 1942 la commencé woon pisciculture ak ci wàllu meññeenteef matu na cinq cent quatre-vingts à l'époque kon yoonu murit référence lañ ci lépp ndax li Serigne Touba teg modèle bi mu teg ak gouvernance bi am ci yoonu murit ba àddina sépp bu sëñ Sidi Moxtaar yëkkatee loxoom murit yëpp topp li mu wax amul fenn ci àddina amul benn réew ci àddina boo xamante ni juróomi millions doomu aadama danañ fa jëmandoo pendant trois jours te lépp jàmm di fa am amul ci àddina kooku xam na ma ko wax kon référence bi ñu am mooy Cheikh Amadou Bamba modèle bi am modèle bu valable la ci diine ak ci xam-xamu doxalinu àddina ak organisation kon ñun taalibe yi nañu xam ne bu ñu bëggee développer Sénégal nañu xool ci modèle Touba ndax Cheikh Ahmadou Bamba dafa liggéey liggéey bu dëgg ci xam-xam ak yar ak yiw ak teggin ak fonk kilifteef ak nangoo liggéey ak nangoo jàng ak ragal yàlla fi muy tënkee banque mondiale sax dem nañ ba recommandation yu bari ñu ngi koy def ci nañ delloo nit ñi ci éthique ak déontologie nañ am yar ak tamit fonk seen liggéey ba mel ne ki lay surveiller mi ngi taxaw tiim la kon nañ fonk liggéey ak jaamu yàlla ak yéenante lu baax ak topp ndigal ak di ñaan yàlla lu waay yàlla jox di nit ñaanal sunu borom mu am ca tawfeex te muur sëñ daam ñu ngi ñaan nga yàgg fi di ñaan mbooloo mi fi teew yëpp yàgg fi fi am soxla yal na ko yàlla faj fi indi tawat yal ko yàlla saafara ñu dajewaat nega ni déwén mbàkki gépp nag ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la bëggee ndax sëriñ Ibrahima patrimoine la ci Mbàkke kon ñu ngi ñaan yàlla bu ñu fi del see déwén lu fa waay indiwoon ci soxla ak wopp ak jàngoro suñu borom saafara ko ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaara ñëpp wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbooleem jullit mbooleem taalibe bu fi teew ci bisu bu bi ci déetal ci nuyoo bi sëriñ daam abdourahman mbàkke mi xarifu taxu toog fii nuyoo boobu nag bu ma koy def président de la république moom fi yónni mu indi nuyoom mu indi nuyoom ci bis bi di nuyu euh, sëriñ abdoulahat mbàkke cheyibu di nuyu sëriñ siidi Abdou Khadr di nuyu njabootu sëñ Touba yëpp ñi fi teew di nuyu Cheikh Baara Abdoul Ahad bi nga xam ni moo fi représenté xalif bi di sëriñ Sidi Makhtar Mbacke yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér na fi yàgg di nuyu sëriñ Fallou ak njabootu Cheikh Ibrahima Mbacke yëpp bi nga xam ni que moom. moo fi moom moom moom moom ko fi wuutu di indi nuyoo président la république di xaadim rek bi nga xam ni seen mbokk la mënoon na ko représenté mais pour wone fonk bi mu fonk sëriñ bi fonk bi mu fonk euh, sëriñ bi fonk bi mu fonk yoon bi moo tax mu ni demal ñu xam ni que xaadim mënoon na ma teewal teewal mais yow nga teew ci mu xam ni que moom ci boppam sax bu amul woon ay xat-xat mooy ñëwal boppam parce sant na la trop conseil yi nga koy jox yëpp dégg na ko mi ngi koy mi ngi koy dox te di la sànniwaat loxoom pour nga ñaanal ko ñaanal ko ci dëkk bi ñaanal ko jàmm ñaanal ko yen bi nga xam ni que yàlla moo ko ko nga xam ni euh, ci ci ci ci ci ci kilifa yi fi bëggoon nguur yëpp moo moo ci mujj nuyu moo ci mujj nuyu sëñ Saaliwu mu wax ngeen ñaanal ko yen bi mu doon yen bu oyof oyof oyof bis bii nag bis bu mag la parce que bis bi nga xam ni day màggal sa waajur sa waajur bi nga xam ni que dafa demoon jël exemple jël exemple ci papam di bëgg a topp yoon yi nga xam ni jëm dafa yëpp 1950 1954 mu dem Gabon mu dem Gabon toppee li nga xam ni fi nga xam ni sëriñ bi jaaroon na fi yëpp yëpp yëpp yëpp mu bëgg fa jaar pour xool pour pour xool xam ni que toppe rek yoonu murit li ci gën a neex mooy toppe toppe nag mooy mooy mooy mooy def li nga xam ni lépp lépp lépp li nga xam ni sëñ Touba vraiment santaane na ko di la gërëm di la sant encore di wax ni vraiment président la république fonk na la trop fonk na bis bi aussi moo tax mu yónni ñu mu ànd ak xaadim ànd ak euh, Pape Mayel Diop ànd ak Galoba nga xam ne sa doom la ànd ak le ànd ak gouverneur ñun ñëpp ñu ñëw pour teewal ko ci bis bi vraiment loolu laa ci doon wax di sant dina gërëm di jox euh, xaadim ah mu sànni ci kaddu ndax moom mooy sa mbokk bu ma ko bàyyi woon moo wax rek kon kon euh, yónnee yónnee président bi du mat moo tax rek moo wax ma bàyyi xaadim mu mu wax ci bu baax moom it wa barakaatuhu Cheikh Sëriñ Abdourahman noo ngi lay ziar ci bis bu tedd bi ci njiitu réew mi président de la république Macky Sall sama nattangoo Abdou Ndéné sàll di mbokkum kër gi ci ay wayjuram ak cosaanam dafa bari aw yiw rek waaye teraangay wax ji moo ko moomoon te wax na ko lépp ba noppi xanaa liñ ciy dolli rek mbakke mooy gën a dëgëral nuyo bu sell boobu nga xam ne président de la république nee na nañ ko teg sa loxo teg ko ci loxoy sa rakk yu baax yu tedd yii la wër ma jiital ci Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Chouaib Mbàkke Balla ak woyofam gi euh, la ko ñëpp ràññee ñoo ngi koy ziare te koy jéggulu ñàkk gi ñàkk a mën a jóg fii na toog ñëw nuyu ko bi nga xamee ne egsi nag jataay bi jaarale ko itam ci sa rakk ju baax jii di Cheikh Seydi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Qadir jaarale ko ci Cheikh Ahmad Rafa yi moom Serigne Fàllu ñeneen ñu fi nekk seeni rakk lañ mbaa seeni doom lañ mbaa seeni taalibe ne man kon mu ngi jaarale euh, nuyoo boobu sa loxo bu sell bu tedd bi nga jottali ko ko Cheikh Sidil Muxtaar ñuy ñaan ministre wax na ko léegi ñaan ko ñetti yoon yàlla yàggal ko fi te wéral ko yàggal ko fi te wéral ko yàggal ko fi te wéral ko ba semb yi mu semb ngir sëñ bi ngeen ànd ko moom yéen ñëpp ba yeggale ko ñu yàgg ci seen ginnaaw euh, Cheikh Ibrahima Mbacke euh, dafa mel ne zahiram sax far not na baatinam noonu bu ñuy waxtaan ci moom baatin ba rek la ñuy wax mooy topp gi mu topp woon ci ndigalul sëriñ bi ay tànkam ak yeggale gi mu yeggale ji woon liggéey ba ca Gabon wax na ko léegi defe naa ñu demoon Gabon ba 54 euh, ak léegi defe naa ne juróom benn fukki at yi tegal na ñi fa dem ba fi mu ne yéemu nañ ci nis fa mënoon a nekkee ab xarnu ci ginnaaw yéemu nañ ko niis fa mënoon a nekkee juróom benn fukki at ci ginnaaw kon loolu day wane liggéey bu njëkk ba ba mu doon topp di ko yeggale ak liggéeyam boobu ban dayu la war a am ci lislaam te tànk yooyu di tànki wutal àdduna bi jàmm sëñ Cheikh Bara wax na ko léegi ah, àdduna bi fi mu ne ay wi yéema na te jaaxal na àdduna te ni mu ko waxee kenn mënu ca pexe kudul xanaa ka nga xam ne ba ko noonam yu sonalee moo leen waxoon afawtu anil adayi turan li wajhi man nafaahum li xayri samadan lastu adfan kon Mbàkke président tàllal na la loxo tàllal na la loxo dénk na la njabootu réew mépp di la ñaan nga ñaanal leen ci barke borom bi bi ndax boo ko ñaanee sëñ suñu borom am na rus na nitam ya ko nekkal ci jaam ñi dana ko nungul ay wi ñuy dégg lu mu rëy rëy lu mu jaaxal jaaxal yàlla na ci Sénégal wéy di mucc ay réew yi li muy li muy jaaxal jaaxal Sénégal yàlla na nu sori yàlla na nu dànd yàlla na koy dégg suñu borom bàyyi nu fi nu nekk seen ginnaaw di bokk ak yéen di jaamu yàlla topp ci seen ginnaaw di jëfee ndigal sëriñ bi président de la République nag laay jeexale lool rek euh, sëriñ bi euh, jox na la cër bu kawe boo xam ne ministre Abdou Ndéné wax na ko waxal na ma boppam bi ñu jógee ci lii ñu weesu sax fi laa sax ay fan euh, ca bañ ne suba la ba mu jógee fii ne moom day lu mën a xew sant na ba noppi ndax bi mu waree Touba ba ñëw ci yow muy tàllal ay loxoom tàllal ko sa yeneen mbokk nee na teraanga jiñ ma teral doy na ma walis may am ay kart mbaa ma di ko ñàkk loolu defe naa ne ci jotaay bi am ñu ko seere ba loolu jàllee itam ba résultat ba lañ ca xam ñu am ko ci te seen ñaan gi ngeen ko ñaanal doon ci baatin suñu borom may ko ci ndam Abdou Ndéné Sall ngi nii toog maa ngi moom ak moom nuy tëju ci saal boo xam ne àll ba ju ñu bokk ceeg moom tëju wax jooje lu ñu wax ci bitti waaye dama ciy jël seere fii ndax sañ naa ko fay wax ne jëwriñ yi ci bi yépp xaadim mii dëkk na Touba keneen bokk na Touba waaye la may santaane ak la ma yéene ak la ma nar Touba yéen ñëpp la war ku ci doon dem benn del dem ñaar ku ci doon dem ñett del dem ñeent. dundee na defe naa président loolu la wax ci saalu conseil des ministres. te booba man dama ko dogaloon ngànd sax ne ah président mi kat man sama jëm nag ah ci noonu taalibe yi rek sañ nga noomee rek kat ma am jëm tiit ba am kersa sax jàkkaarloog moom président lii de la tontu nu àndaat génn tukki mu ne ma. man de àll àlluway jàng alxuraan teg naa ko ci sama tànk ni ko ñëpp di tege kon xaadim lu xeex daara mënta jóge ci man lu xeex diine mënta jóge ci man damaa bëggoon Sénégal ñu jàpp walis jëneen ndox jurul jooju la ma waxal sama bopp la ma waxaloon bopp mooy booba dama ko leeral lënt lënt yi tax li ma jort ne résultat yi indi na ko lënt lënt mu jaaxal ko lool mu ne man la ma waxoon bopp bi fi kilifa gi ëpp doole ci réew mi ëpp doole ci loolu waaye loolu dañ koy war di fettali waaye nun nii dem ci saal yi ak sukk suñuy woom ci kanamu sëriñ si noo defut la nu war noo ko war a leeral waaye la mu waxoon loolu leeralaat lii la wax ba bi may yónni barki démb bi sëriñ daal yi déggee coow yi am ci yalwaanu mbedd mi mu ne ma yow na nga ci ànd doo ministre éducation doo ministre de l'enfance doo ministre de l'enseignement doo premier ministre waaye dama laa yebalal sama bopp nga dem teewal ma ci ab dundal fekk na ko bañ toogee ci ndaje ma waxtaan wala la mu wax ndaataan mu yónni nu ko mooy terewul yalwaan mii dongab daara di def ndax sëriñëb daaraam mënu ko daan may laaj ne ma ndax yalwaan nga ma ne ko ah yalwaanu ma de waaye daanaa lekk yalwaan ndax léeg-léeg ma daan ma dàqal lañ togg ci kër gi mu ree mu daan ne ma euh, yalwaan ngir dund ba mën a jàng loolu kenn sañu ko tere Sénégal taxawaalu mbeddum ndakaaru mii laay bañ te li tax ma koy bañ li ci njëkk mooy ñàkkum gi mii am ci àdduna bi ñay wut ay nit di leen takkal ay bomb di leen ko tàlloo ci kaw seeni morom ci mbedd mi rek la ñuy wuti nit ñooñu kon war nañoo fàggandikul ñooñu ba ñii na ci mbedd mi ñu xam fañ ñu jëm man miy wax daanaa xëyee sama kër yoof war a xëy liggéeyi dinaa ko romb gone yoo xam ne léeg ma xëy 6 heures demi léeg ma xëy 7 heures demi bis ba du doon gaawu alxames mbaa beneen saa bu ma jógee romb leen fa bu may dellu kër pause léeg ma ñëw 14 heures léeg ma ñëw 15 heures fa laa leen di fekk su may gont léeg ma génn 15 heures fa laa leen di bàyyi na ne am njàng bawu leen waaye nee na daara alxuraan yi nga xam ne yéen a ngi ko ci liggéeyal te xam na ne dongab daara bu ñu defar ba mu sotti lam bëgg ci réew mi bu ko bëggee ci ñooña ñoo gën a gaaw ci amal ko ko loolu nee na du ab xeexam loolu nag bu ma ko waxut du ma doon gor du ma ndax nekk naa ak moom ñeen fukki weer ak juróom waxaguma ci yoon wi ma bokk ak diine ji ma bokk lu tax ma mere ko mbaa ma bàyyi ko loolu rek laa bëggoon a seere sëñ bi di leen ñaan ngeen ñaanal ko yéenam rafet na ci Sénégal ba yàlla may ci ndam asalaamaaleykum wa rahmatullah